assalamualaikum mbokk yi di leen gërëm di leen sant si ngeen ñuy déglu il y a quelque temps dañu décidé won créer bitcoin sénégal manam ben room buñ doon dawal ci house am nit yi mën nañ ñëw di poser fofu ay question awol of di leen répondre awol of bitcoin ci partie technique ci si partie fonctionnelle daal lépp lu jëm wut donc tay moy première fois bi nga xamé ni enregistrer nañ ko bi mo nekkoon imit numéro 10 bu bitcoin sénégal house thème jour bi ni wa xamni ça c'est tenu le 13 octobre 2021 mo nekkoon lan moy nœud bitcoin lan moy njëriñam lan motax mo am solo lan moy risque après ñoo def ben débat ouvert donc ça c'est tenu pendant 2 heures de temps motax dañ koy def en deux parties donc bi ni mo may partie une bi di leen souhaiter une bonne écoute alors grand Idrissa lay nuyu j'espère que yaa ngi si jàmm salaamaaleykum Mr Nuru. waaleykum salaam si dëgg la dëgg la j'espère que yéen a ngi si jàmm sant yàlla bu baax alhamdulilah waaw tey moom on va parler de la mooy si réseau Bitcoin la moo tax mu important après ku nekk soo amee question bu muy poser tamit même si c'est pas lié à sujet bi ñu jëm si répondre rek inshallah inshallah En tout entre temps am na am na ay kii yu ma raté de ah. Euh, non dañoo organiser woon la dernière fois ñu defoon ko débat ouvert boobu bëri woon na nit quand même léegi ils ont parlé à peu près de tout ah. côté technique bi comme côté financier bi njëriñ c'était un samedi ou bien. waaw euh, waaw je pense que c'était un samedi. ok. parce que la dernière fois bi may kii je pense da nga newoon dañuy waxtaan si euh, opportunité ou bien euh, c'est-à-dire ndax war nañu créer suñu propre monnaie wala ñu. Hmm. si depuis lor nag euh, jotuma dugg si si kii quoi si waxtaan. dëgg la boobu dañ ko waroon organiser ñu am problème technique. donc du coup biñ defee ah non non mais biñ defee débat ouvert bi si lañ si wax rapidement. ok ok ok. Mais bon, on va dire grosso modo pour résumer, man, à je sais pas. Donc, moi je disais qu'en fait, philosophie ou déjà au Bitcoin, moi que nous avons un intermédiaire. Donc, mm -hmm. c'est géré par le protocole, c'est géré par le tonneau, etc. Euh, philosophie au Bitcoin aussi, moi ku nekk yow responsable sa a yaa garder sa bop soo vous yone keneen mën nga ko def soo que recevoir tamit mën nga ko jot léegi léegi te amul kenn ku la mën a censurer lu dul sa bopp alors que CBDC yi bon une banque centrale ñoom ñoo koy créer pour le moment dañ ko luyee ak monnaie yi existe déjà donc loolu déjà c'est un problème parce que monnaie yi on connaît qu'elles sont inflationnistes te ñu ngi koy gis tey donc soo defee benn CBDC mu suivre même trajectoire bi ça veut dire que moom tamit dafa nar a inflationniste autre chose moy ko intermédiaire lañu kon banque centrale yi alors ko lolu bitcoin don bañ et troisième chose bi moy bank banque centrale mën na la censurer manam su fekkee suba dañoo nek ben monde te si lañ jëm sax bo xam da nga am benn inaira nga am ben Guy Sagna bo xam ni dafa am euh, <laughs> exemple <laughs> dafa am ben portefeuille am UCFA dañ kay bloquer ci sasi tu vois. Effectivement. donc bon. bon man man man moom fi ma doon c'était pas par rapport au CBDC Hein. côté boobu moi, je suis je suis contre ça. Mm -hmm. c'est-à-dire les monnaies numériques contrôlées par euh, les banques centrales kooku moi, man moi, intéressé ou ma quoi je suis pas je suis pas fan. mais fi ma doon waxee moi, comme par exemple tokenisation de de l'immobilier. Mm-hmm. loolu monnaie que vous portez si si si yenen ci yeneen transaction mm-hmm. comme par exemple diaspora bi bu ñuy yónnee ay fonds jaaree ko par une cryptomonnaie ou bien le secteur du transport au lieu que ñuy utiliser monnaie fiduciaire bi mm-hmm. ñu utiliser benn crypto boo xamante ne déjà il y a une communauté mooy ñi utiliser transport en commun yooyu mën nañu utiliser crypto boo xamante ne bon di dinañu wàññil euh, weccit bi ñuy dépensé même les pharmacies aussi mën nañ dugg si mm-hmm. ça dépend côté côté boobu laa doon waxee quoi. si xam je vois li nga bëgg ay basé j'imagine sur la technologie blockchain entre guillemets. oui justement technologie blockchain. ok en fait euh, je pense qu'on l'avait abordé mais très rapidement la dernière fois et man benn kii rek laa si benn réserve moi que même s'il y a une anonymité relative hein, sooy utiliser genre de technologie du fait de la cryptographie mais sujet tu es tout le temps obligé de garder ci une entité centrale donc si tu as par exemple de euh, cadastre tu seras obligé de passer par le cadastre par impôt et domaine que tu suñ un d'immobilier immobilier obligé tamit di nga am entité centrale pour xam gérer tu vois donc si on ko en relation avec une blockchain qui est ouverte imaginons ñu def loolu c'est ouvert tout le monde peut avoir accès comme euh, Bitcoin nous nga une transaction nous yow am ID buy refléter une transaction am na site internet yu bëri internet nous dem sama imaginons ñu def est-ce que nous dinañ nous ñu xam ñaata kër lañ am est-ce que nit dinañ bëgg ñu il y gens qui sont yónnee par weer tu vois donc euh, solution yooyu noonu mën nañ leen utiliser ce genre cas yi mais il faut d'abord qu'il y ait un travail préalable à euh, à savoir genre nan la préserver vie privée wu nit yi nan garantir une anonymité mais vraiment totale quoi tu vois man comme euh, on va dire comme comme réserve quoi je sais pas loo si oh man, je me dis que on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Hein. <laughs> Déjà, côté transaction, côté spéculation, on le peut réglé. Mais bon, c'est une euh, préoccupation quotidienne, comme euh, une chaîne Link, qui est une spécialisée aussi, une, qui, nous ko def va paraître décentralisé. exactement euh, c'est un choix mm. et troisième chose puis moi, que on parle de blockchain on sait qu'il est quasi difficile il est quasi impossible d'effacer euh, effacer dessus, élément dessus sauf que ce c'est pas vraiment décentralisé Donc, on erreur humaine nous avons créé un risque opérationnel pour l'OL. donc dans le cadre d'une erreur de frappe voilà, ça, en matière de finance nous avons un fat finger gens genre fait des noonu sur comment faire pour corriger la donnée alors que c'est déjà éparpillé à je ne sais pas combien de centaines de nœuds là aussi c'est une question très difficile à répondre effectivement effectivement. Mm. du coup je vais commencer en attendant nit yi je commencer par présenter WhatsApp. déjà je vais préciser que dans dans enregistré donc euh, audio bi rek la partager après du am tout du am dara euh, si suñu si pas YouTube yeewu ou pardon bo xamni déjà ñu ngi fay def ay pour expliquer la moy Bitcoin la moy full node la mooy euh, minage mais aussi depuis récemment on va dire depuis la semaine dernière damay def ay vidéo yo xam des damay démo ouais ay ay démo quoi nan ngay créer ce propre full node nan ngay installer yenn OS yi nii ak yeneen ak yeneen donc déjà ma présenté wu euh, Nourou alors man Sénégal laa juddoo laa màggee laa yaroo bi ma amee bac plus deux si laa ñëw France pour poursuivre samay études euh, diplômé finance de marché donc euh, spécialisé wu si lépp lu jëm si gestion des risques maanaam contrôler trader yi ba duñ def njaaxum comme Kerviel après c'est la. là bi ma paree études ma def consulting pendant quelques années donc occupé la poste yu notamment développeur risque analyse data analyse chef de projet et depuis quelques mois dama bàyyi loolu lépp pour mon créer sama structure au Sénégal donc instant ni nii ñu ngi si yoonu dellu le ba dans quelques semaines Inch'Allah. c'est sama histoire avec bitcoin ça remonte en 2017 euh, ben collègue moi, ma découvrir le le terme crypto monnaie après mu affaire ça sama beaucoup intéressé ci la commence di renseigner après me gëna bitcoin faut la on va dire entre guillemets focus donc bitcoin Bob nonou ma commencé bind article après ma commencé d'ici on va dire d'appeler nit yi pour ñu gëna xam bi ma après ma commencé jàngal sama bopp jëma a sama ay ñu comment ça fonctionne jàllee si loolu récemment si la enrôlé benn programme bu Chain Code Lab donc Chain Code Lab il font benn structure qui boo xam ni ñoom euh, ils beaucoup à développement au Bitcoin en finançant des développeurs en animant des formations gratuites pour képp qui intéressé wu même su fekkee dañ lay tester donc Chain Code Lab boobu noonu dama ñu def benn programme en juillet bu jëm si développement Bitcoin et tayni rek deuxième programme cinq semaines bi nga c'était sur le Lightning Network et à côté de ça donc depuis un mois et quelques je l'ai créé chaîne YouTube bi euh, di def room Clubhouse et aussi di def ay podcast tout ça objectif de moi, lan démocratiser xam-xam autour de Bitcoin et autour de entre guillemets cette technologie blockchain bi nga je pense que mën na intéresser donc question wu taille bi mooy lan mooy nœud bitcoin à la mooy importance pour me répondre si question bii nii donc déjà dañuy ñëwaat ci base donc dinaa def ben genre dinaa def dinaa wax pendant 15 minutes <laughs> enchaîné après ñu mën a ubbi question yeeg yooyu donc ne bitcoin lan la déjà dañuy dellu si base bi bitcoin man chaque fois dama koy def 4 bitcoin première bi la philosophie deuxième réseau peer-to-peer troisième protocole bi quatre crypto-monnaie bi philosophie bi mu ngi si ci cypherpunk si philosophie bi mu ngi si crise suprême philosophie bi mu ngi si malversation yi ñu gis monde de la finance ou démb ak philosophie bi mu ngi si cryptographie pure Maintenant, déjà cypherpunk si donc il faut remonter dans les années 90. ils ont mis en fait en place beaucoup de beaucoup d'outils beaucoup de solutions pour d'appeler nit yi ñu préserver cette vie privée à travers la cryptographie donc si ça fait si si lañ jugee si lañ jëlee ay Julian Assange bi nous xam léegi nii ak Wikileaks si les gars yi jëlee ay PGP pour mën crypter say euh, on va dire say communication à yeneen à mais si philosophie bob non tamit mën nañ si boole ñeneen ñi xam ni créé ay solution comme ashcash. Ils doon permettre à l'époque de lutter contre le spamming mais aussi yeneen gars nga xam ils ont créé des crypto-monnaies bien avant am par exemple B-Money de Weida à l'époque e-gold ak ak l'idée de tout cela c'était quoi mooy à travers la cryptographie permettre de mettre en place benn solution bi nga xam ni nit dinañ mën échanger entre ñoom ay valeurs sans benn intermédiaire donc loolu la gars di la plupart du temps trustless system donc ben système la bo xamni soxla wo wolu ki nga jakarlo man nuru ma bëgg yoni idrissa il suffit juste ma xam adresse am soxlo ma xam kam idrissa suma ko yoni idrissa mom tamit il a juste à faire confiance à au système dina jot xaalisam te suma ko essayer njublang dina am preuve bi ni man njublang nako ainsi de suite donc lolu moy philosophie bi à la base et pour que lolu mëna nek si lañuy ñëw si deuxième bitcoin bi moy bitcoin Système peer-to-peer peer à peer en français vous avez un système peer-to-peer bi nit yi gën xam utiliser peut-être sans savoir même que c'est peer-to-peer mais u uTorrent pour me télécharger des films, des vidéos, etc donc c'est quoi un système peer-to-peer maanaam da un di nekk réseau ku si nekk soo télécharger installer client da ngay le réseau mais aussi tu participes à la sécurisation du réseau au renforcement du réseau de telle sorte que nous n'y sommes pas sur room réseau peer to peer nous partager ben fichier suñu daanalee nour daaneel Idrissa nous Lamzo ba légui fichier dina Awa dina dess ci Babacar dina dess ci Maguette dina etc., etc. système peer to peer comme ay Napster euh, comme ay torrent etc. il est très difficile même Tor sax c'est basé sur un système de peer to peer Euh, donc Bitcoin genre système boobu la ku télécharger client Bitcoin Core wala beneen client da ngay intégrer réseau Bitcoin soo intégrer réseau Bitcoin da ngay bokk si nëwu Bitcoin yi ak sa në di nga mën a def affaire yu bëri si loolu la ñuy waaj a jóg léegi am nañ philosophie bi am nañ réseau peer to bi mais nan la ñuy def ba ñëpp d'accord sans wóolu keneen ki danga am lu ñuy wax protocole bi. donc protocole Bitcoin c'est tout du Bitcoin tout simplement te soo leen déggee protocole mooy juste un ensemble de règles yu def ko nit yi di déggoo yu def ko nit di volonté sans gisante entre guillemets et ensemble de règles boobu yëpp gars yi dañ ko donc langage bi c'est C++ c'est open source maanaam ku nekk mën nga dem xoolal sa bopp nga dem auditer sa bopp par exemple da ngeen di dégg tout le temps ñu naan leen Bitcoin dina atteindre 21 millions l'an 2130 quand on a événement à Alving, on a divisé par deux rémunération bi du tous les quatre ans mais le c'est parce que dañ ko si partie très spécifique ligne de code donc c'est intéressant le protocole est open source te définir validité la transaction yi définir éligibilité ou non. Comment définir tamit validité wu bloc nan lañ leen di entre nœuds qu'est-ce qui fait qu'une transaction est valide et euh, peut, être introduite dans un bloc etc. cetera vraiment règle yu la règle est très amé li lepp ñu am une philosophie qui est on va dire matérialisée par un réseau peer-to-peer un réseau peer-to-peer qui est dirigé contrôlé par un protocole lolé pour la la pour mëna nek ci 4e bitcoin mi moy bitcoin la crypto monnaie token bi nga xamni mom la gaay di échangeanté sen bir crypto monnaie bobu nonu instant yi ni dañ ko jox valeur aujourd'hui valeur bi mi ngi nek ay 56000 dollars ben maintenant crypto monnaie bobu non ben tu peux le subdiviser en 100 millions d'unités manam am nga 1 bitcoin à 56000 mais mën nga am 0,1 bitcoin à 5000 0,01 bitcoin à 500 etc et ainsi de suite petite unité yooyu non, la ñuy et les sats léegi suñu nous voyons c'est que nous avons bitcoin important pour loolu dañuy dellu si deuxième bitcoin bi bitcoin réseau peer to peer déjà pour qu'un réseau peer to peer soit fort soit puissant il faut mu bëri na loolu mooy une décentralisation bi ngeen di soo nit xasee ba am benn bitcoin lan la koy permettre mu def lu bëri un da koy permettre donc mu intégrer réseau bi deux da permettre mu créer un portefeuille du benn du ñaar na créer jusqu'à je sais pas combien n portefeuille portefeuille yooyu yëpp mën nañ ko permettre mu garder ay crypto te c'est un élément important de bitcoin aujourd'hui ku nekk soo bëggee garder sa xaalis da ngay dem soit si banque ba soit si sa calpe mobile money soit nga denc ko sa biir kër te bu nekk am na risque soo ko dencee sa biir kër su fekkee ay billet la jinax yeeg yooyu mën nañ ko lekk ndox mën na ñëw toyol ko lakk mën na ñëw disparaître loo ko soo leen ko dencee ci banque yi banque yi mën nañ jékki-jékki tëj mais yàgg nañ fi gis tamit banque jékki-jékki bloqué sa compte juste parce que dafa am suspicion wala dafa la jaawale keneen nga nekk di galérer pendant des mois pour jot sa xaalis mobile money yi tamit pareil c'est les mêmes types de risques entité centrale yi nekk ci gannaaw que ce soit opérateur téléphonique yi wala que ce soit banque yi mën nañoo jékki-jékki tëj loolu moo xewoon en 2008 2009 fële aux États-Unis avec Lehman Brothers clients yi di daw ci ginnaaw loolu mooy dal tamit avec exchange yi manam broker yi nga xamni ni la nit di dem pour jënd crypto-monnaie notamment avec Mongox bu mu tejé Mongox dafa yóbbaale 900000 900 000 bitcoin ba tay ni nii nit yaangi daw ci bitcoin donc le fait que nit am un ne ci PC wam wala ci Raspberry Pi ou wala hardware ça lui permet au moins mu contrôler ay propre crypto monnaies mu contrôler ay bitcoin am wala ay satam loloy de nit ki mën na yónnee di recevoir saa yu ko neexee sans jaar ci keneen sans fay ay frais supplémentaires yu dul frais yi nga xam ne moom la réseau bi di laaj loolu tamit c'est un élément important trois ce nœud moom mooy valider say transaction moom mooy vérifier sa bopp est-ce que sa transaction bi nii ça respecte les règles ça respecte maanaam le consensus mais aussi sa nœud dafay valider

dina ni vérifier bloc yooyu noonu donc ça participe à renforcer la sécurité du réseau Bitcoin donc ne loolu moo important Madame, da ngay participer clairement ci réseau bi da ngay participer clairement sécuriser système bi da ngay participer clairement à la bâtir souveraineté monétaire maanaam contrôler sa xaalis contrôler sa alal contrôler tout simplement li ngay dépenser ak après nag suñu waxee ne bitcoin ñu wax importance am mën nañ wax risque yi tamit am na quelques risques benn bi mooy étant donné que yow yaay garder sa bopp sa alal yow yaay responsable donc di nga am benn clé privée boo xam ne yow yaa koy garder sa bopp et eh bien clé privée boobu noonu soo ko réeralee maanaam réeral nga sa alal bi yëpp y' a aucun moyen de retrouver cette clé privée là c' est impossible instant bi ni gars des def ay statistiques après je sais pas c'est basé sur quoi euh, mais c'est évalué à plus de 2 millions de bitcoin apparemment yo xamni c'est perdu donc chaque fois dañuy dégg nit yo xamni euh, ils te disent genre dañ doon miner ay bitcoin si un PC au tout début wala que ñom musoon nañ par exemple jënd ay bitcoin ci ben exchange après def ko ci ben portefeuille mais fàtte nañ sax fan lañ ko bah tout ça c'est perdu et Satoshi, au tout début quand il parlait de ça il disait que c'est un don à l'humanité Madame Cooper, perte rek en fait tu contribues à ce prix affaire donc c'est un don donc c'est le euh, premier risque deuxième risque bi que nit yi xamni ni yow yaay garder sa bitcoin mën nañ ñëw au ñuy attaquer banque bi li ñuy tous les jours mën nañ ñëw jëm la attaquer yow donc mën nga nekk cible loolu tamit lu jar a bàyyi xel la moo tax euh, il faut jamais dire déjà parce que loolu damay gis nit yu koy def il faut jamais dire man j'ai tant de crypto-monnaie wala j'ai tant de bitcoin loolu moom erreur la quoi je pense que kenn su ñun fii du dem naan tant laa am sama banque wala tant laa am sama mobile money sama kalpe donc erreur la deux aussi il ne faut jamais dire fan laay fan ngeen di garder ses crypto-monnaie ñenn ñi dañ la naan sama exchange laa koy garder ñeneen ñi naan la man dama am sama propre et cetera il faut jamais faire ça parce que dès lors que nit parce que dans les xam ken ngeen di waxal peut-être que kooku amna xam-xam nécessaire pour nous top len dugg sen PC sacc li ngeen am tu vois donc loolu tamit risque le quoi troisième risque bi moy n'y ñak xam bi parce que un nœud c'est un système c'est un logiciel mu ex seen bir PC wala seen bir hardware le frein et comme chaque système comme chaque logiciel dafa am ay failles ay failles de sécurité man bi fait defee programme chain code bi nii si laa découvrir failles qui bëri yoo xam ne na mais bon comme politique ou failles yi ñu xam doo leen si wax quoi donc loolu ça peut être un frein à l'adoption des nœuds bitcoin donc grosso modo daal li laa leen bëggoon wax ci nœud bitcoin ak importance am mais aussi ak risque après je sais pas ndax am ngeen loo leen si bëgg a yokk wala boog na ay questions yoo leen si bëgg poser donc du coup je laisse la parole à Idriss. Euh, Lamzo waa Babacar wala kereen ku bëgg a jël parol bi na yëkkati juste loxo bi ñu jox ko